assalamualaikum dare Linguère ma ngi nuy ñep di ziaré ñep di baalu ñep ax té di bal ñep ak tay euh viande hachée lañ la indil euh, ni ñu koy défaré euh, American style. hachée bi nak mo nekk ni légui dag dag suñu solo bu pare ak di euh, nak couleur la dama ko siy def rek parce que couleur yi ma bëgg mo tax mais. euh Del capo bella. kaani salade waaw nah, kaani salade bu verte bu jaune bi ak bu rouge bi ak soble di dagati def ko si ça dépend nag si seen viande seen mu toll ngeen ko koy seetee li doy ngeen def ko ci bu la soble soble bu la ak gannaaw la banana. <laughs> Oh, oh yeah, I don't Orange that. bonheur. Oui, aroma dame, aroma Oh. Are you still gonna put the eggs? Mm-hmm. This one, the eggs takes it together. No, the eggs doesn't make me. da ngeen def si seen euh, laaj bu laaj bu mokk bi waaw laaj bu mokk bi nag yomb naa am da ngeen di euh, jël laaj wowal ko nga des fois laaj bi boo ko gàddee lu yàgg day yàqu moom ngeen di jël wowal ko dëgg ko moo nekk nii dañuy euh, wax limon pepper waaw limon la ak poob ak poobar bu ñu dëgg incha allah xam naa si si yeneen épisodes yi gis nañ ñoon dinaa leen woon naka lañ koy defaree incha allah. kaa noonu la ñuy wax kaane euh, bu kii boobu noonu la rek bu gudd bi mais saful noonu tuuti rek ngeen si def yéenay seen nag li nga xam ne moo leen saf ngeen def seen saf safal marinade la waaw ah, di soble bu mokk la tamit rek ngeen def si seen booba koy dëbb rek xam nga bu ngeen xool li tax lii nii yëpp nekk poudre parce que fii nii doo am temps pour nekk fii di dëbb doo am foo ko dëbbee tamit te da am ay dëkkandoo bu leen déranger waaw nga sa lépp ba maase def si xorom xorom laa si mujjee def léegi nii moo te woon toujours nag balaa commencé raxas loxo mu set wecc ak saabu te surtout ma yàpp moom boo koy utiliser waa bëri germe yi si nekk si bàyyi ko bu baax. waaw gannaaw ba nga xam ne def nañ si lépp waa am na ñoo xam ne nag bu leen neexee dañ siy def nen mais man su si defee nen saa veut dire que dama siy def farine parce que day fekk ne yàpp bi dafa nekk lu tuuti nga bëgg koo na mais boo paree rek ni nga si ni nga koy def danga koy muur. oven. Euh, après bu ngeen pare ngeen koy muur ak seen euh, sax papier de d'aluminium bi ngeen di jël ngeen muur ko ci man nag balaa ma koy dugal si four bi damay taal bi bàyyi ko noonu ba nga xam ne tàng na taseeg lii. def ko ni shape ko ba mu baax. parce que boo ko mënulee def nii si nga koy. Euh, euh, si nga siy def farine ak euh, nen yokk koog ñoom seen parce que day ndaw te bii nii viande hachée comme ça que nag kii nañ ko ba pare dañ koy dañ koy couvrir dañ koy ko dal mi ñoom. bi teg ko préparé koo dugal ci fuur bi fuur bi tàngagul na man dama koy bàyyi ba mu tàng mu dugal ko incha allah waaw mi ngi nii dugal nañ ko ci fuur bi fuur bi tàng na instant yi nii léegi dañ ko fi bàyyi presque une heure et demie ça nag ci fuur bi nga ñëw rek waaw léegi kon euh, moment bi dañ siy def euh, euh, ketchup mooy ketchup bi dañ ko siy def muuree ko noonu ci kawam. Pues, eh, léegi bu ñu koy puusaat ci fuur bi duñ koo muur ak euh, plastique parce que bu ngeen ndox mi dañuy bàyyi ndox mi wàcc dañ koy euh, ah, baa ngi nii euh, pain pain de viande hachée nag lañ koy woowee mooy meatloaf soo instant nii ndox mi si nekk dañ koy dindi bi si njëkkoon am tour naa ko ba pare parce que ndox mi dafay bari ak nu muy génnee noonu hmm, dañ koy tuur après nga bàyyiwaat ko ci. geliyor. waaw ah, na ngeen ni génne nañ dox mi si nekkoon Ay ko léegi mu mu ñor pare na sax ni ah, ci res des retu. Da 30 minutes ñu génn ko def na léegi une heure de temps jërëjëf jëf seen teewaay ci émission daaray di leen di leen remercier ñëpp à la prochaine incha allah